أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi suratul fatiha ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ñi ngi jéem yeggale lenn li nga xam ne moom moo desoon ci saar bi muy wala dolliin loolu moo ci desoon samedi bi ñu mujjee tafsir ñoo ngi jëloon almaghdub alayhim gaa ñi nga xam ne yàlla tabaraka wa taala da leen a mere te mooy alyahud waxoon nañ lan moo tax yàlla mere leen tey ñii nga xam ne ñoom ñoo ci des muy ñaareelu groupe bi ñoom yàlla tabaraka wa taala merewu leen waaye ñoom addaalluun lañ ñoom dañoo réer dañoo sànko suñ ne almaghdub alayhim mooy yahud suñ ne addaalluun mooy nasaraan yi mooy chrétiens yi ñooñu dañoo sànku dañoo réer ci suratul fatiha jullit bi bi mu ñaanee ne yàlla ihdina sirat al mustaqim yàlla yàlla nag ma teg ci yoon wu jub bi jullit bi dafa tànnalu yàlla pour yàlla teg ko ci yoon bi nga xam ne moom la bëgg mu ne sirat alladina an'amta alayhim waaye ci biir saar bi ba tey mu sàkku ci yàlla tabaraka wa taala yàlla bañ koo teg ci ñaari yoon ñetti yoon la jullit bi sàkku yàlla teg ko ci benn bi musal ko ci ñaar yi ñaari yoon yooyu yoon bu bu njëkk bi mooy yoon bu baax mooy siraat alladina anamta alayhim ñaareelu yoon bi baaxul ñetteelu yoon bi baaxul lu tax ñaareelu yoon bi baaxul mooy yoonu yahud yi lu tax ñetteelu yoon bi baaxul mooy yoonu nasaraan yi yahud yi dañoo yàlla da leen a mere nasaraan yi te mooy chrétiens yi ñoom dañoo réer te dina ñëw ci lan moo tax ñu réer addalin mooy man axtau tariq al xaq mooy ñi nga xam ne dañoo moy yoonu dëgg bi axtau dañoo juum dañoo jadd dañoo waroon jaar ci yoonu dëgg bi ñu daal di jadd yoon wi wàcc yoon wi moo tax ñu juum fa abadullaha bima lam yashrahu ñu jaamu yàlla ñoom dañuy jaamu yàlla waaye jaamu yàlla bi ñuy jaamu yàlla yàlla waxul nañ ma jaamoo noonu gis ngeen ñii ñuy waxal tey te mooy chrétiens yi te mooy nasaraan yi li tax yàlla ne dañoo sànku mooy yoon wi leen yàlla rëddaloon lañ bañ a jaar ñaareel bi mooy dañuy jaamu yàlla ci anamin woo xam ne yàlla rafetlu ko yàlla buggu ko te xam ngeen ne tey ci lislaam am na ay jullit yu baree baree baree baree bari ni ñuy jaamoo yàlla yàlla buggu ko am na ci jullit yi laa wax tey ni ñuy jaamoo yàlla du lu yàlla wax du lu yonentu wax loolu tey boo ci doon mis jël misaal ak bëri ci ay mbir yoo xam ne tey ci biir réew mi dafa bari bari bari bari bari bari ba te yooyu yëpp yàlla wàccewu ci dara dara dara dara kon ñii yàllaa ngi nii ne dañoo sànku lu tax parce que dañoo jaamu yàlla ci bi ma lam yashrahu ci li yoon woo xam ne yàlla yoonalul yoon wi kon bépp jullit boo xam ne yow jaamu yàlla bi ngay def yàlla yoonalu ko kon yow ban yoon nga nekk te tey booy compter jullit yi ci ni ñu wuutee ci ay façon yu ñuy jaamu yàlla ci ay xew yu ñuy màggal ci ay bis ci ay guddi ci ay bëccëg ci ay kaam léeg-léeg nga dégg ci rajo bi ñu ne dañuy dañuy wàccee ñaari junni kaamil est-ce que loolu yàlla moo ko wax est-ce que loolu yonent moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg nga dégg ñuy ci ay guddi yoo xam ne yàlla waxu ci dara yonent waxu ci te yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd képp ku sos ci mbir mii ku ci indi sa mbir bopp yàlla daf la koy delloo kon ñii te mooy annasara lan moo tax yàlla ne dañoo réer mooy dañoo jaamu yàlla ci yoon wu yàlla gërëmul waaye lan mooy réer maa huwa dalal lan mooy réer lan mooy sànkute mooy al inhiraas mooy jàdd ci arab bu ñu la ne an yow da ngaa inhiraaf mooy yow juboo yow baaxoo kon diine ji kuñ ci ne yow da ngaa jàdd rek bu yeba nga xoolaat sa bopp baatu réer ci arab mooy al inhiraaf wal bu'du anil huda mooy sori njub kon chrétiens yi dañoo sori njub yoon wi leen yàlla rëddaloon ne nañ jaamu yàlla dañoo jaamu yàlla ci beneen anam misaal lu lu gàtt a ngi nii est-ce que Christ Christ christifié Christ kañ la am Christ kañ la am après Jésus Isa bi muy dund est-ce que da doon takk croix doon takk croix est-ce que bi mu doon dund nii la doon jullee au nom du Père au nom du Fils xaw ma et de Saint-Esprit noonu la doon jullee loolu kañ la am ginnaaw Isa parce que biñ nee rey nañ ko biñ nee christifié nañ ko ci la lii commencé kon ci jamonoom amul woon kon ñii di ko def est-ce que ñoog Isa ñoo yem kon ñoom nii ñuy jaamoo yàlla du yoon wu yàlla tëral moo tax ab jullit war a mooy tandiku di jaamu yàlla ci lu yàlla waxul wala ngay sonn ci loo xam ne yàlla waxul moo tax Omar ibnul Xataab seen na benn labbe benn waay benn mushrik ab yéeféer bu samp estati di ko jaamu Omar daal di jooy sahaaba yi daal di waaru ci Omar jooy gi mu jooy ndax yéeféer bi mu gis sahaaba yi dañoo jàppoon ne Omar mii li muy def xamu ko ndax lii muy jooy jar na jooy ñu ne Omar kii yéeféer la lu tax ngay jooy mu ne benn aaya alquran laa jàng ma natt ci waa ji loolu moo ma jooyloo ñu ne ko ban aaya la mu ne amilatun nasiba yàlla nee na am na ñoo xam ne dañuy sonn waaye du ñu fayee ko kii daa sonn waaye yàlla du ko fay aaya boobu buñ ko jëloon tey di ko natt ci ay jullit yu sonn waaye du ñu fayee ko waxuma sax ñuy fo waxuma ñi mel nii de déedéet am na ñoo xam ne dañoo sonn waaye diine lañ ko tuddee te yàlla neen du ñu fayee ko yowmal qiyaam ndax te loolu xel nangu na ko xel da ko nangu te bu ñu demoo léegi démontré ko ñëpp xam ne xel nangu na ko mbokk yi ñun ñëpp ay sénégalais lañ bu ñu xëyoon suba ñun ñëpp ñu bale tali bi ba mu set lakk mbarit mi tuuri ko suuf si ñu jël ko àndal ko est-ce que bu weer dee état bi dinañu fay damay laaj ci est-ce que bu weer dee dinañ ñu fay lu tax duñ ñu fay est-ce que liggéeyuñu liggéey nañ wala liggéeyuñ liggéey nañ mais est-ce que dinañ ñu fay bu wee ku def loolu nag daal di bale géejawaay gi ba mu set bis bu nekk nga xëy ci benn tali bis bu nekk nga xëy ci benn tali ba weer dee rek nga ñëw taxaw ci banque bi génne sa carte d'identité teg ñu ne la loo soxla ngay daw dañ may fay ñu ne ah lu tax ñu lay fay nga ni man man liggéey naa temps yëpp maa doon bale tali boo fa defee 10 minutes 10 minutes rek boo ko defee ci kanamu guichet bi ah 10 minutes da ngay jékki-jékki rek gis sa bopp ci suuf ñu mënate say tànk ak say loxo doo xam lu la daaneel xam nga fan ngay yendu ci dig dig ngay yendu ci xoolal ni nga sonnee liggéey nga de pourtant bale nga ba tas mais kenn du la fay parce que kenn embauché wu la parce que bi ngay liggéey kenn waxu la xëyal mais bu tey jii bu la maire bi waxoon xëyal jël la nga liggéey ba weer dee dina la fay wala du la fay parce que dañ laa liggéeyloo ah ci jaamu yàlla tamit boo ñëwee nga ni da ngay jaamu yàlla ci lu la yàlla santul nga fanaane yuuxu guddi am yoo xam ne bu timis jotee rek ñu takk seeni rajo di yuuxu di yuuxu ba 4 heures du matin ñooñu nga defoon yàlla dina leen fay. di tëgg di fecc di sikkar di yuuxu donte na sax dañuy wax laa ilaha illallah mais yàlla du leen fay parce que xam nga loolu amul place ci l'islam loolu moo dal chrétien yi lu tax ñu réer mooy yàlla dafa tëral yoonam ne leen jaar leen nii ñu dem jaar yeneen beneen yoon fent beneen façon jaamu yàlla boobu dafa sori sonn te doo fayee lan lañ doon julli léegi léegi léegi léegi ban julli lañ doon julli timis ñaata rakka la timis ñaata rakka la da ngay yox yoxi ñaata la ñett su benn waayu ñëwee sangu ba rafet sol yére yu bees tàq yu set mu ne man timis ñett la waaye damaa bëgg yàlla fay ma juróom benn laa julli julli na wala julliwul bu fi kenn wax julliwul julli na wala julliwul julli na est-ce que timis la julli ah est-ce que yàlla dina ko fay lu tax parce que ni mu ko defee yonent yàlla muhammad defewu ko noonu allahu akbar mu tax mu ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad ku def benn jëf ma ni muhammad defewu ko ni ma koy ni ma ko yàlla sante yàlla dala koy delloo mu tax lu garaaw la chrétiens yi loolu moo leen dal mooy dañoo sori yoonu dëkk wi ñu jaamu yàlla ci weneen yoon wu leen yàlla santul loolu mooy réer dëgg-dëgg nag mbokk yi ad dalal mooy al inxiraaf wal bu'du anil huda al matlub réer sànku mooy nga sori dëgg gi nga xam ne moom lañ bëgg nga nekk soo sori dëgg dëgg gi nga xam ne moom lañ bëgg nga dund nga sori ko soo ngénte dootoo ngénte lu Muhammad wax booy labat di takk jabar dootoo takk comme ni ko yonent yàlla Muhammad waxee soo amee dëj doo ko defee comme ni ko yonent yàlla Muhammad waxee sooy julli doo jullee ni yonent bi doon jullee ci jaamu yàlla yëpp lu la neex ngay def ba pare tey ngay layoo ne man Muhammad laa àndal man yonent yàlla Muhammad laa gëm mais yow li muy def doo ci def dara lu nuroog moom est-ce que yow yaakaar nga ni ëllëg di nga fayeeku ku nekk na natt boppam ci li may def nii est-ce que li may def loolu la Muhammad def ndax nasaraan yi loolu moo leen dal wa huwa fi shar'i nawaani moom réer ci sharia islam ñaari façon la bu njëkk bi mooy dalalun fil i'tiqad wa dalalun fil amal réer ci sa pas-pas sànku ci sa pas-pas ak réer ci sa jëf pas-pas bi nga fas nga sànku ci jëf bi ngay jëf nga sanku ci lii dal nasaraani dama leen di laaj leen laajal yàlla dal na jullit yi lenn ci ay jullit wala dalu leen pas-pas seen pas-pas tey ku doon càmbar jullit yi di pas di càmbar seen pas-pas pas-pas fan lay nekk ci xol al itiqaadun bil qalb itiqaad pas-pas bi nga fas sa xol yow fasoo li yàlla wax fasoo li yonent bi jàngale fasoo la sahaaba yi fasoon yow sahaaba yi dañoo gëmoon yàlla mooy yàlla muhammad mooy yonent bi alquran mooy téere bi jóge ci yàlla yow nga gëm ne am na koo xam ne moo gën a fort muhammad am na koo xam ne li ko yàlla may mayul muhammad may ko yonent yàlla muhammad am na koo xam ne yoon wi mu indi jaar fa moo gën a gaaw yoonu yonent yàlla muhammad yow alku nga sànku nga ku bëgg a gis kuy dem safara rek bu la gisee na la xool te waaju mel noonu ku ko gis nga gëm ne kii aljanna la jëm yow mi gëm loolu safara nga jëm loolu tax ñu war a xoolaat sunu bopp mbokk yi itiqaad pas-pas mooy waajoo yu nga xam ne bu njëkk bi te mooy itiqaad bi nga xam ne pas-pas la bu nit fës avant jëf bi di ñëw mooy dafa wuute mu xaalif kullan aw baad pas-pasam dafa wuute lépp ak téere yàlla pas-pas dafa wuute ak li yonent yàlla muhammad indi ku mel noonu ba pare di lay ne man maa ngi ci lu leer man maa ngi ci njub maa ngi jaamu yàlla maa ngi sellal kooku dafa sonn mais yàlla du ko fay mooy la ñu waxoon sànq amilatun nasiba ñaareel bi te mooy ad dalal fil amal huwa ibadatullahi taala bi gayri ma sharaa wa taqarrubu ilayhi aza wajal bi ma lam yashrahu mooy réer ci say jëf jëf yi nga xam ne da nga koy jëf di jaamu yàlla xam ngeen ne bu ñu nee jaamu yàlla ibaada jaamu yàlla ibnu taymiya bi muy firi jaamu yàlla loolu la wax ismun jaamiun tur la woo xam ne dafa ëmb dafa làq dafa boole li kulli ma yuhibuhu llah wa yarda lépp lu yàlla bëgg gërëm ko ci ay wax ak jëf ci yu feeñ ak yu nëbb loolu mooy jaamu yàlla benn bu ci nekk nag lu mënoon a nekk yonent yàlla muhammad daal di ñëw jàngal ko daal ne mbir mi nii lañ koy defee lépp la yonent bi jàngal moo tax ci aj da nga gis yonent bi sala salaam gestu sahaaba yi ne leen xusi anni manasikakum xool leen ci man nu ñuy jaamoo yàlla ci julli mu ne sallu kama raaytumuni usalli bal alquran dafa wax ne wa ma ataakum rasul fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu chrétiens yi bokk na ci li tax ñu réer mooy dañoo sànku ci pas-pas sànku ci jëf sànku ci pas-pas li ñu fas baaxul parce que dañoo pas ne almasih ibnullah mariam soxna yàlla la isa yàlla moo ko jur moo tax ñu sànku di takk ay croix di bokkaale di jaamu xërëm moo tax ñu àgg ko moo tax yàlla ne dañoo réer kon sànku ci jëf mooy ibadatullahi bi gayri ma shara jaamu yàlla ci loolu li mu yoonal yàlla bi mu bëggee ñu jaamu ko dafa yónni yonent yonent boobu mu jox ko téere mu ne nii laa bëgg nañ ma jaamoo amul lu yonent bi jàngalewul benn mbir rek laa leen di laaj fi ngeen toog mooy na ngeen wax lenn ci jaamu yàlla te yonent bi jàngalewul luñ fay wax wala luñ fay def wala nuñ koy defee na am kenn ku laaj loolu ci jaamu yàlla yi na am kenn ku laaj laaj bi mu ne jaamu yàlla sàngam day yonent bi saa salaam jàngalewu fa dara waxul nañ fa wax dara waxul nañ fa def dara wonewul nuñ koy defee na kenn wax benn jaamu yàlla boo xam ne yonent bi jàngalewul nuñ koy defee waxul luñ fay wax wonewul nuñ koy defee bismillah
boobu amul amul.
léegi kon bu fekkee yonent yàlla Muhammad lépp la jàngale lépp la wone lépp la leeral mu dem ñun ñu ñëw indi yeneeni mbir yu yonent xamul fuñ jëm ah mbokk yi alku alku tey dañuy màggal ay guddi yoo xam ne ay bëccëg yoo xam ne ay weer yoo xam ne lu kenn xamul da ngay daanaka da ngay dem ba lislaam bi dootoo ko xàmmee ku nekk ak sa guddi ku nekk ak sa bëccëg ku nekk ak sa bis ku nekk ak sa dara ba pare ku nekk rek am nga loo bokkul ak sa waay te loolu tey ku fekkoon yonent yàlla Muhammad ci bàmmeel ne ko nangam ak nangam dalaa la limal xaw ma ko te yàlla nee na chrétiens yi bañ ko defee sànku nañ léegi ñun jullit ñu bëgg a def loolu mbokk yi mu ne wala yanju min hadha dalal illa man tamassaka bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala yanju du mucc du rëcc du raw min haza dalal ci réer gi ci sànkute gi illa lu dul man waa ji nga xam ne tamassaka ngëp na ngoy na langaamu na bi kitaabillahi ci téere yàlla wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen kon kan moo bëgg a mucc kan moo bëgg a mucc ndax mbokk yi bëgg ngeen mucc ku bëgg a mucc fii nekk ci loxoom lan moo tax nga mucc mooy jàpp ci téere yàlla ak sunna yonent jeex na ku jàpp ci téere yàlla jàpp ci sunna yonent bi rek rëcc nga xam nga lu tax rëcc nga mooy kenn dootu la mën a sànq su benn waaye ñëwee ne la gunge ma dafa am guddi gu ñuy màggal nga ne ko fu ko yàlla wax mu ne la ah ñun kat man kat fii laa ko fekk na nga ne ko gisuma ko ci alxuraan nga toog nopp lu yonent bi waxu ko su benn waaye ñooy ne la nga ne ko xaaral ma xool téere bi ndax mu ngi ci nga noppalu dafa am benn waay boo xam ne sëriñam daf ko ziyaare si këram maanaam du sëriñam mais sëriñu papam moo ñëw ziyaar si papa ji ci kër gi bi sëriñ bi ñëwee papa ji woo ñëpp ñëw waa kër gi ku ñëw rek daal di koy nuy rek am loo def ci loxo bi ku ñëw am ko ko nuy rek def ci loxo bi benn waaye daal di ñëw rek jox ko jox ko ñaari loxo ne ko asalaamaaleykum ne këcc moom bañ a def ci loxo bi dara. ñu ne ko ah papa ñu ne ko ah yow da nga dof yow kër gi yëpp biñ ñee am na lu ñu def ci loxo sëriñ bi mu ne waaw loolu ñu def man yàlla dama ko tere papa ñu ne ko fa la ko yàlla tere mu ne yàlla def ma ne laa tasjudu li samsi wala lil qamari fasjudu lillah bu leen sujootal jant bu leen sujootal weer na ngeen sujootal yàlla mu ne ko aadama sujootoon na te amul bàkkaar mu ne ko aadama da cee jot ndigal man jotuma ci ndigal mu ne aadama ku ko joxoon ndigal mu ne ko yàlla moo ko ne woon iblis sujoot sujootaleel iblis mu bañ malaaka yi sujootoon nañ mu ne ko malaaka yi dañ cee jot ndigal ndax waxoon nañ leen usjudu li aadama man nag dañ ma ne laa tasjudu li sams wala lil qamar man dañ ma ne fasjudu lillah sëñ bi ne ko bàyyil kii kii daa sànku kii daa sànku est-ce que kooku dafa sànku moom moo sànq kooku sànkuwul kooku li muy jëfe dafa leer moom moo sànq kooku li muy def dafa leer kooku sànkuwul waaye dañu ne bàyyi leen ko mu dem kii daa sànku moom moo sànq gis ngeen kon kenn du jàpp ci alquran ak sunna di di alku di réer abadan moo tax mu ne wala yan ju min haza dolal kenn du rëcc ci réer moomu illaa lu dul man tamassaka bi kitaabillah lu dul ku jàpp ci téere yàlla wa sunnati rasulillah ak sunna yonente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ku jàpp ci téere yàlla doo réer mbokk yi yontu moo ko wax yontu moo ko wax de yonent moo dénkaane ne aleykum bi sunnati yi maa ngi leen di dénk sama sunna yonent wax na ne bàyyi naa fi ñaar ku ci jàpp doo réer ñu ne ko ñaar yooyu mooy lan mu ne kitaab allah wa sunnati rasulillah téere yàlla ak sunna yàlla sunna yonent bi téere yàlla sunna yonent bi jeex na mbokk yi suñu ñëwee ci mbiru nasaraan yi ana lan moo tax ñu sànku dinañ gis lenn ci ay mbir yu yàlla wax ci alquran bokk na ci li tax ñu sànku bokk na li tax ñu alku bu njëkk bi mooy ixtilaafuhum ma al yahud mooy ñoom ak yahud yi dañoo wuute bu leen yaakaar ne nii tey ñu complowe l'islam di ko xeex lenn saa sax nga dégg ñu ne yahud ak nasaraan ñoo ci ànd ak ñeneen ak ñeneen waaye ñoom ci seen biir sax dëppoowuñu yàlla moo ñu ko wax borom bi nañu wa qaalat alyahudu laysat alnasara wa qaalat alnasara laysat alyahudu yàlla nee na wahum yatluuna alkitab wahum yatluuna alkitab kadalika qaala alladina la yaclamuuna mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana alayati liqawmin yaqiluun yàlla nee na yahud yi nee nañ chrétiens yi nekkuñ ci tus waaye chrétiens yi nee nañ yahud yi nekkuñ ci tus kon kan moo nekk ci tus kan dafa am benn waay bu ne benn benn jullit bu ñu laaj ñaari laaj benn yahud moo ko laaj ak benn nasaraan ñu ne ko ndax ñun yahud danañ dugg aljanna yahud bi laaj ko loolu jullit bi nasaraan bi ne ko ndax ñun nasaraan yi danañ dugg aljanna kan lañ laaj laaj bi benn jullit bi muy tontu mu ne ah man de xaw ma ndax yahud dina dugg aljana xaw ma ndax nasaraan dina dugg aljana waaye xam naa ne jullit moom bu nasaraan duggee jullit dugg bu yahud duggee jullit dugg ñu ne ko ah ah yow foo ko teg mu ne ñun gëm nañ Moussa gëm nañu Isa te yéen gëmu leen Muhammad ñun moom suñu dugg wóor na ndax ñun gëm nañ seen yonent gëm nañ seen yonent yéen kon yéen bu ngeen duggee ñu dugg waaye ñun nag bu ñu duggee ah yéen seen bos wóoru parce que gëmu leen sunu yonent kon ñoom li ñu wax dëgg la chrétiens yi li ñu wax dëgg la de yahud yi nekkuñ ci dara waaye yahud yi tamit li ñu wax dëgg la nasaraan yi nekkuñ ci dara wallahi wax nañ dëgg ndax yàlla moo leen ko wax lool ñaareel mooy iftiraahum ala allah chrétiens yi bokk na ci tax ñu réer dañuy dañoo fenal yàlla lan lañ waxal yàlla wa qalat alyahudu uzayr ibnu allah wa qalat alnasara almasih ibnu allah chrétiens yi lan lañ waxal yàlla ñu ne isa doomu kan la doomu yàlla est ce que yàlla dafa am jabar bay am doom léeg-léeg ma wax xale yi bu ñuy tafsir école ba ma ni leen kenn ci ñun toog fii buñ ko ne woon sa papa mu ngi ngénte koñ bee te amu fa jabar yow yëngali xew tey nga di lu xew ñu ne pourtant sa papa mooy ngénte fee de nga ne sama ban papa ñu ne sa papa ji ci kër gi muy ngénte tey te yow yëngali sa papa koñ boobu amu fa jabar lu ñu wax sa papa luñ ko wax xoolal ñu wax loolu yàlla ñu ne yàlla mooy papa yi Isa te yàlla takkul soxna wax jooju ku ko wax est-ce que mën ngaa jug ah moo tax jinne yi ba ñu déggee wax ji ñu yuuxu asamaan xotteeku suuf xar montagne màbb lu tax an daaw lirrahmani walada te wa ma yambagi lirrahmani an yattaxisa walada in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rrahmani abda yàlla nee na man jomb na am doom ndax asamaan xotteeku ci loolu waaye ñun nag bañ ko déggee ñun lu ñu wax léeg-léeg sax ñu ànd ak ñoom ñoo ngi novembre décembre a ngi ñëw léeg-léeg sax nga gis jullit bu ne man de du ma feetu mais nag yaa jënd ginaar rek ñu def meew ci kër gi man ak xale yi ñu toog quoi bañ a dem fenn loolu nga def noonu ci lan la bokk bakkaar bu rëy la kon nasaraan yi bokk na ci li tax ñu réer ñu sànku mooy dañoo fenal yàlla ñetteel mooy iftiraahum alal anbiya dañoo fenal yonent yi alayhim salaam lan lañ wax am taquluuna inna ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaqub wal asbat كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله yàlla mu ne ndax yéen nasaraan yi da ngeen di wax ne Ibrahim ak Ismaïl ak Ishaq ak Yaqub ak seeni sët ay yahud lañu woon wala ay nasara lañu woon chrétien lañu woon waaye yéen nasaraan ak yahud am taquluun a antum aalamu amillah yéen yéen a xamal la yàlla xam kon di nga dégg di nga dégg ci wax ji ne dañoo tuumaal yonent yi ndax buñ la nee yow nangam nga Ibrahima nangam la Ismaila nangam la Is Ishaq Yaqub ak seeni sët ñoom nangam lañ woon yàlla na leen ndax yéen yéen a xam wala man maa xam man mi leen bind man mi leen bindoon tàggat leen wàcce leen ci kaw suuf tànn leen def leen samay yonent man yàlla maa xam wala yéen yéen a xam mbokk yi an nasara amaniyuhum ñoom seen mébét seen bëgg-bëgg mooy lan lan lañ bëgg borom bi tabaraka wa taala nee na bokk na ci seen bëgg-bëgg wa qaalu lan yadxulu aljanna illa man kaana xuudan aw nasaara ñu ne yahud mooy dugg aljanna wala chrétien kon kan moo des kon yéen moom nee nañ du ngeen dugg lan yadxulu aljanna du dugg aljanna moom lan lañ wax de illa lu dul gis nga istisna man kaana huudan aw nasaara ab yahud rek mooy dugg aljanna wala chrétien ku fi des kon lan la ñu wax ci jullit ñu ne du jullit loolu mooy seen ju- jubluwaay seen jubluwaay mooy seen bëgg-bëgg mooy jullit bu mu dugg aljanna waaye ñoom bi ñu waxee loolu yàlla da leen ne su fekkee yéen yéen a moomu aljanna yéen yéen a bëgg dugg aljanna bëgg leen dee fa tamannawul mawta in kuntum saadiqin bëgg leen dee rek ku bëgg dugg aljanna kay xoola ñi bëggoon ñi bëggoon eh yéen ñaar mu leen yéen ah ñi bëggoon dugg àjjana mooy ñi nga xam ne da nga leen doon jam xeej xeej sët xeej bi daal di dugg ñu daal di buddi xeej bi daal di koy yëkkati ci kaw daal di ne fuztu wa rabbul kaaba texe naa ñi bëggoon dugg àjjana mooy ñi nga xam ne dañoo lekk tàndarma yonent bi ne kan ma bëgg a dugg aljanna ndeysaan nga gis ku jël tàndarma daal di ne baxin baxin daal di sànni tàndarma ñu ne ko lii nag mu ne su ma fi toogee bay lekk tàndarma bi daf may tardeel pour ma dugg aljanna ñi bëggoon dugg àjjana mooy ki nga xam ne dafa am séet tey ci guddi mu fanaanoog séet bi mu dégg ci fajar ñu naan hayya alal jihaad mu daal di jéggi séet bi mu def xeex ñu rey ko ñu seen malaaka yi indi ndox aljanna di ko sang ñooñu ñoo bëggoon dugg aljana ñoo ñooy dugg aljanna kooku mooy Hanzala ghasilul malaika sahaaba yi dañoo waaru parce que ku sahid buñ lay suul kenn du la sang yére yi nga sol kenn du ko simmi dañ lay jullee rek daal lay suul nga dem aljanna direct wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwaat bal ahya inda rabbihim yurzaqun Hanzala nag ñu gis malaaka yi di ko sang sahaaba yi daal di waaru yonente bi saa sallam ne dafa amoon janaaba bi muy dem xeex yi dafa amoon janaaba jotul sangu allahu akbar dafa amoon janaaba jotul sangu ñu gis malaaka yi di ko sang muy dugg aljanna ñooñu seen àjjana leer na ah yonente saa sallam moo jàkkaarloog ay sahaaba daan ne diw diw diw diw bañ mat fukk mu ne yéen ñëpp aljanna ngeen jëm al mubashirina bil bil janna ñaata lañ ah mu ngoog ñu dem juróomeel mooy amruhum bi tibaa'il injil ñoom nasaraan yi yàlla tabaraka wa taala bi mu yónnee Isa ci ñoom yàlla def leen joxoon benn téere bu tudd injil ñi koy wax évangile ne nañ ko topp ñu dem jël téere boobu daal di koy soppi def ko ñeenti téere xaw ma juróom-ñaar xaw ma fukki junni ñu tànn ci lu leen neex daan na yi ñoo baax mooy mata ak murqat ak ba mu ngeen di wax Jean Luc Paul ak Matthieu ñeenti injil yooyu ñu boole ci Barnaba ak bible bu mag bi mu nekk juróom benn ñu ne yi ñoo baax ñu tuddee bi ancien testament tuddee tuddee tuddee bi nouveau testament yal na yàlla yërëm ahmad didaat ndeysaan gars yi dañ doon laajte ahmad didaat yàgg na dee na bu yàgg yal na ko yàlla yërëm gars yi dañ doon wër ndeysaan ñu ne bu jigéen deewee ñaata fan ñaata weer ñaata semaine ñaata bis lay toog du sëy ñu koy wër ci ci ci bible ci ancien testament ak nouveau testament ñu ko ciy wër ñu dajale seen kàngam yëpp am benn waay ne leen ah man de xam naa koo xam ne suñ ko woowoon fii mu wan leen ko ñu ne ko woo ko mu daal di woo Ahmad Didaat Ahmad Didaat ñëw ci mbooloo mi daal di toog soo ba ngoon ñu koy wër ci seen bible bi mënuñu ko gis ba ñu sonnee mu daal di yëkkati loxo ñu ne ko ah da ngaa xam fu mu nekk mu ne waaw ñu ne ko fu mu nekk mu ne nekkul ci ancien testament nekkul ci nouveau testament ñu ne ko fu mu nekk mu ne mu ngi ci dernier testament bi mu ngi ci dernier testament bi ñu ne ko dernier testament bi ban téere la mu ne ubbi leen alquranul karim mooy dernier testament bi ubbi leen suratu baqara aya temps bu ngeen ubbee di ngeen wax yàlla mu ne bu góor deewee jëkkëram jabaram dina toog ñaata ñeenteel ak fukki fan.
doog di ko tënj du sëy gis nga kon ahmed di daal ku déggoon di téere bi la borom bi tabaraka wa taala mu ne man yàlla maa leen joxoon injil ma ni leen fal yahkum ahlal injili bi ma anzala allah ñetti aaya ñëw na ci wa man lam yahkum bi ma anzala allah fa ulaayka am na zalimun am na kafirun am na fasiqun yàlla ne nañu wàcc nañu attewoo téere bi ku attewoowul téere yàlla yow tooñkat nga kàccoor nga yéeféer nga waaye terewul ñu topp ko juróom benneel mooy tasxiihu aqidatihim borom bi tabaraka wa taala bi mu xamee ne seen pas-pas wérul wàcce na ca alquran aaya pour jubal seen pas-pas mu ne qul ya ahlal kitaabi taalaw ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum allaa na'buda illa allah wala nushrik bihi shay'an wala yattaxis baaduna baadan arbaaban min dunillah borom bi nee na yéen ñooñu téere yahud ak nasaraan ñëw leen ci benn baat bu ñu boole bu nekk sunu diggante ak seen diggante bu ñu jaamu benn yàlla bu dul yàlla bu ñu ko bokkaale ak kenn ñenn ci ñun bu ñu jël ay nit di leen def ay yàlla aaya bi ñan la yàlla doon waxal mooy nasaraan yi kon seen pas-pas jàdd gi mu jàdd moo tax yàlla wàcc alquran di ko jubanti nanguwuñu jaamu yàlla kese foog ñu bokkaale ko gis nga moo tax yi ñuy takk ak yi ñuy def ak yi ñuy sujjóot ak yi ñuy def seen jëy ak croix yi ñuy takk mbokk yi juróom-ñaareel mooy xururuhum seenuk bew seen mébét ci ñun yàlla wax nañu ko mooy ñoom mébétuñu ñun ñu jàdd ñu nekk di ci dëkk yàlla mu nañu walan tarda ankal yahudu wala nasaara hatta tattabi millatahum yahud ak nasaraan day yéen jullit ñi li ñu bëgg ci yéen rek mooy ngeen mel ni ñoom ngeen mel ni ñoom rek su ngeen melee ni ñoom rek ñoom ñu noppalu ngeen mel ni ñoom kese gis ngeen li ngeen di gis nii fi mu nekk nii xoolal tey stade bi ñi ci julli timis est-ce que bëri na ndax ñi ci julli timis bëri na wala lii rek jël fo réeral doomu jullit yi ba talatuñu yàlla fi mu nekk nii am na ñoo xam boo leen woon yàlla dañ naa la xoolal taxawal nii yaa fi yaatal ay yàlla ñun tolluñu yàlla nawetaan nawet bi jeex na nan lañ tudde woon lii nu mu tudd nawet jeexul lu tax lii di jeex nawetaan daawul fekk école di ubbi wala kañ la école ubbi tey ñaata weer ah ñu nekk ci gis ngeen léegi dañ leen di taalal làmp guddi da ngeen defe ne lii hasard la lii du dara lu dul rek di nax doomu jullit yi nax di leen nax suñu leen bërëloowee football loo leen yóbbu leen ci simb bi yóbbu leen ci yóbbu leen ci musique bi yóbbu leen ci Oscar de vacances di leen yóbbu rek lu jeex rek ñu diri su ñuy rëcc fee ñu koj ñee fee ñii rëcc fee ñu koj ñee fee ñii rëcc fee ñu koj ñee fee mooy lan hatta tattabi millatahum ba nga nekk ci seen yoon rek ñu canaliser li yëpp ay ay mbaal la ay mbaal ndeysaan doomu jullit yi yi mbaal rek di yóbbu jahannama bokk yi sant leen yàlla yéen ba bokk leen ci ba ngeen rëcc ci mbaal yi sant leen yàlla de sant leen yàlla de wax leen alhamdulillahi allazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah tey am na yéen mënoon ngeen nekk fee waaye yàlla moo leen bëgg ngeen toog fii yàlla moo leen boole tey ngeen toog fii ci jàkkaam ji di julli ak di déglu waxtaan pour dugg aljanna am na ñoo xam ne bu ñu leen waxoon kaa leen ngeen dugg ngeen dem tribune officielle booy ñibbi ñu may la 10 000 dañ daan demuma bëgguma sa 10 000 wala am na ñoo xam ne fee waxuma la 10 000 boo leen ne kaa leen géttu mbaam ñu raw kon yéen sant leen yàlla waaw mu ngoog jërëjëf mbokk yi juróom-ñetteel mooy naqduhum lil uhud ñoom ay fecckati kóllëre lañ ay fecckati pas-pas yahud ak nasaraan lépp lu ñu wax ak yàlla lépp lu ñu waxoon ak borom bi tabaraka wa taala lépp lu leen seen yonent bàyyiwuloon dañ koo fecc ginnaawam yàlla moomu ne wa min allazina qaalu inna nasaara axadna mithaqahum fa nasu xazzam mimma zukiru gis nga yàlla mu ne am na ci gaa yi nga xam ne dañu ne ñoom ay nasaraan lañ yàlla mu ne signé woon naa ak ñoom contrat waaye la ma waxoon ak ñoom fa nasu xazzam mimma zukiru la bari lu ci ëpp dañ koo fàtte dañ koo sànni ci àll ba ca ajag-jag lañ ko sànni tepp ci seen i bànneexi bakkan mu ngoog mbokk yi juróom-ñeenteel ci tomb yi yàlla daf ñoo tere ñu far ak ñoom yàlla dañoo tere ñu far ak nasaraan yi ñu leen di bëgg wala ñuy xaritoo ak ñoom da ngay gis tey benn waay boo xamante ne ah man eh dama am benn xaritu nasaraan di ko tiitaroo di ko présenté sax nit ñi nag kër gu nekk nga dugal ko fa kii sama xaritu nasaraan la te yàlla daf ñu koo tere yàlla mu ne yaa ayyuha alladina amanu laa tattaxizu alyahuda wannasaara awliyaa baaduhum awliyaau baad ndeysaan allahu akbar xoolal yàlla la ban baat la waaye yaa yoo lazina amanu ee yéen ñi gëm ñu ne ah mu ne ngal la waay bu leen jàpp yahudi ak nasaraan yi ngeen di far ak ñoom di leen def péete di nga gis benn waay boo xam ne yahud ak nasaraan moo ko gënal jullit yahut ak nasaraan moo ko gënal jullit yàlla mu ne bu leen def loolu yahudi ak nasaraan yi ñoom ñoo war a far yéen jullit yi yéen na ngeen far seen biir su ngeen ko deful musiba bu réy mooy am ci kaw suuf te day loolu moo am su jullit ak jullit farul farul yahud ak nasaraan farul waaye jullit dem fari ak nasaraan jullit dem far ak yahud yàlla mu ne musiba mooy am ci kaw suuf lan moo am tey musiba boobu moo am mbokk yi an nasaara gaaluuna fi diinihim nasaraan yi dañoo ëppal ci seen diine yàlla mu ne yaa ahlal kitaabi laa taxlu fi diinikum wala taqulu ala allahi illa alxaq ee yéen yahud ak nasaraan bu leen ëppal ci seen diine bu leen wax ci yàlla lu dul dëgg ëppal ci diine gi mooy lan nan la ñu ëppale seen diine ah dañuy def lu ñu leen def loowul de deux mooy lan lañ wax ci yàlla lu dul dëgg mooy yàlla dafa am soxna am doom loolu wax gënu koo gënu koo garaaw moo tax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam mu ne bu leen ma jay bu leen ma jay laa tatruni kama atarat nasara isa ibn maryam bu leen ma jay comme nasaraan yi ni ñuy jayee jésus am ngeen jay am na sëriñ yi ñu jay ba ne yàlla lañ dégg na loolu am na sëriñ yoo xam dañ leen jay dañ leen yéen ay yàlla ngeen yow yàlla nga yaay yàlla bu gaa yi boo ñëwee gaa yi di yuuxu di yëkkati oto yi di daw ak moom naan mooy yàlla diw mooy yàlla wala day wane yàlla wala yow doo moroomu gaa yi te yàlla yonti waxoon na bu leen ma jay ndeysaan yonti wax saxaaba yi bu leen ma jay jayaate chrétiens yi dañoo jay Isa ne ko yow yaay doomu yàlla yont bi bu mu xamee loolu mu ne bu leen ma jay comme chrétiens yi niñ jamee niñ jayee Isa mu ne man jaamu yàlla laa innama ana abd man jaamu yàlla laa faqulu abdullahi wa rasulu wax leen ma jaamu yàlla wax leen ma yonent yàlla moo tax gis nga boo xoolee alquran place yi ci ëpp importance yàlla bi muy wax ak yonent bi lu mu ko wax abd subhana allazi asra bi abdihi tabaraka allazi anzala alfurqana ala wa innahu lamma qaama araayta allazi yanha abdan iza salla abd jaam yonent yàlla muhammad tur boobu moo ko gën a neex ci turam yi abd jaam yonent bi yonent bi dafa teel a freiné nit ñi yonent bi moo am 124000 sahaaba amul ku ko débordé naan ko yow yàlla nga wala yow doomu yàlla nga wala jarbaatu yàlla nga wala yow soo waxee mu am wala yaay borom na am mu am wala yow ko di yonent bi dafa teel a fere na gaay am na ñu ñëw naan ko sayyiduna wab nu mu ne "Eh, doy na doy na doy na as sayyidu huwa allah gis nga sang bi mooy yàlla teel a fere na gaay wala ñun fii waxuma sax sëriñ yu mag yi mais ci mbur mburu yu ndaw yi rek is gaay di leen jay ci mbur mburu yu ndaw yi laa wax ci mbur mburu yi waaw da ngay gis gars yi di leen jay donc ma sax ñu mag a mag ñi waaw comme ñoom ay El Hadj Omar ak ñoom El Hadj Malick ak ñoom Cheikh Ahmad Bamba waxuma ñooñu ñooñu moom gars yi li ñu wax ci ñoom ci jay yi ñu leen jay sax dafa ëpp waxoon naa fi keroog li ñu wax ci El Hadj Omar ah loolu la ñu wax ci El Hadj Malick loolu la ñu wax ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen même limaamu da ngay dégg ñu ne limaamu laay moo pousse géej gi loolu la ñu wax ci ñëpp ku nekk nañ laa jay yonent bi nag moom dafa bañoon loolu ñu koy jay daan ko yow yaa def dara yaa def lii yow yaa wax lii ah yonent bu ko neexoon gaa yi wax ko lu gën a garaaw loolu waaye da leen a freiné bañ na ko sax ba ne ne yowmal qiyaam ku jaamul yàlla mënulu ma la dara woo na doomam ba mu ñëw Fatima ne ko yaa fatimatu bintu muhammadin salni min maali ma shiti fa inni la ugni anki min allahi shay fatima jaamul yàlla de boo jaamul yàlla ëllëg mënuma laa dugal aljanna mbokk yi an nasara dullaal nasaraan yi dañoo sànku dañoo réer ci hadis bu gudd boo xam ne adi ibnul xaatam moo ko solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir hadis boobu wax na an nasara dullaal chrétiens yi dañoo sànku yonent bi moo ko wax kon ku gëm ne chrétiens yi ñu ngi ci njub yow sànku nga yow ci sa bopp dangaa sànku beneen bi mooy an nasara kuffaar chrétiens yi nasaraani ay yéeféer lañ yàllaa ko wax laqad kafara alladina qaalu inna allaha saalisu salaasa yàlla nee na ñi ne yàlla ñett la naan nii nii teg seen jë teg seen mbagg càmmoñ teg seen mbagg ndeyjoor yàlla nee na ñiy def loolu ay yéeféer lañ waaw leneen na nga dégg benn waaye bu wax ci rajo yi naan sunu mbokk nasaraan yi xanaa sa mbokk la ñu ngi du suñu mbokk man ne du sama mbokk xaw ma yéen nag ndax yàlla waxu ñoom suñu mbokk lañ yàlla lan la wax innamal mu'minuuna ixwa yàlla julit la wax ñooy mbokk waaw yàlla julit di la wax ñooy mbokk waaye boo buggee ba yeneen mbokk di leen xëccaat ndeysaan léeg-léeg sax nga dégg benn kilifa diine bu leen di seedeel dégg naa benn kilifa diine boo xam ne nee na bu ñu- ñooñu bu ñu war a dem safara nee na moom dina jël volontaire dugg safara ñooñu dugg aljanna waaw dañoo xamul safara mooy lan rek xam nga ku ndox ku toog fii lekk sa bonbon naan sa café bu loo neex nga wax waaw ñu tàntal la nga yor sa micro mu neex lu la neex nga wax waaye bàmmeel bii rek bàmmeel bàmmeel rek ku fa dugg mu leer waxuma la ak nag allaaxira bàmmeel bii rek bii bàmmeel yii bu ñu gasee ba mu xóot ba nit ñi dugal la dem ñibbi yow sa mbir leer waxuma la ak nag allaaxira ñu caaxaan rek waaye bu yeboo mu leer suñu bopp ku ku dof dof lu ba ñu sànk la ci seen wax yi ñuy wax ba nga topp leen ba ñu ba nga dee allahu akbar foofu la wax bi nekk mbokk yi mu ne wa kufru nasara yéeféer gi nga xam ne nasaraan yi nekk nañ ko ak kéeféer min jihati amalihim bila ilmin ñoom dañuy jëf te amuñu xam-xam képp kuy jëf te amoo xam-xam yow sànku nga da ngay nekk taxankatu guddi ku bàyyi ba guddi nga jël sa saak dem ci àll di ut mat mën ngaa fekk jaan ju lemu nga jël dugal ci saak bi parce que guddi la dafa lëndëm mën ngaa fekk ay dem àll ba yowoo koŋ nga buub def ci saak bi alaysa kazalik xam nga kañ ngay xam ne li nga jël li ëpp du mat kañ nga koy xam kañ kañ bu bët setee bët set mooy nga am xam-xam boo amul xam-xam da ngay làmbatu rek di def lu la neex soo gisee gars yi daw jaar nii nga daw jaar nii soo gisee gars yi mbëkk miir nga mbëkk miir bi ñu ne la la nga ni nit ñi ñëw mbëkk ma mbëkk soo gisee gars yi mbëkk garab nga mbëkk garab boo gi yenn saa yi Sénégal dafay am ñu ne doomu gaynde daa réer ku takkul sagar bu xonk da lay yóbbu nga gis ñëpp takk te rek ay paa ak ay meer sax ñu takk léeg-léeg ñu ne am na kuy saraxe day saraxe yàpp ak 10000 ak perkaal kum ko jox da ngay dee koo ne asalaama mu ne ni yenn saa yi ñu ne am na kuy nuyoo waate di yóbbu ay waay yàlla ku la ne asalaamaaleykum waaye ko waaleykum salaam voilà parce que lu ju- gis nga boo jàngul lu jóg nga dem lu jóg démb démb démb damaa xotti benn këyit bu ñu indi suñu école ñu ne ku doon garder bàmmeelu yonent bi moo ko gis mu ne nangam nangam kër tëtëtëtë ma bàyyi ndaw si ba mu wax ba pare ma ne ko pare nga mu ne waa ma jël këyit gi xotti mu ne ma ne nañ ko ko xotti da ngay dee ma ne ko bu ma ko xottee dinaa dee bu ma ko xottiw dinaa dee wala wala du ma dee këyit googu ku ko xotti dee ku ko xottiw dee di dafa am benn waaye bu demoon ci benn dëkk muy ut tool xam nga waa ji ka demoon ci dëkk ba di ut tool te mu te mu doon dóor rabu barñi ba xam nga ko dama leen di wax nii xam nga ko jërëjëf waa ji dem ci dëkk bi mu fekk benn place boo xam ne moo gën a baax ci dëkk bi dafa verte mais kenn du ko bay mu ne leen waaye yéen fii nag ñu ne fii ku ko bay dee mu ne may leen ma ko ñu ne ko ñun suñu yoon nekku ci du yi da ngay xaw ma ibaadu nga xaw ma lan nga mais gis nga fii ku ko bay dee mu ne waa léegi man waxuma dara soxlawu leen ko ñu ne soxlawuñ ko mu yéen illéeram bay ko ba mu rafet njël ñax mi teg daal di ji gerteem bi mu ko ruujee ba pare nag fekk ruuj na ba pare saxal jiyagul rek mu- mu sibbu ruuj ñu ne ko waxal sa adresse foo dëkk fii boo fi dee kenn du la fi suul da ngay jàng wowle fii ku ko bay da ngay dee nga naan da nga koy bay dafa bay ba pare rek sibburu parce que dafa gëj a bay musul bay Dakar la jóge rek dem ci kaw gi ñëw rek jéngu bay bi mu bay ba pare nag feebar tooy gars yi daal di koy toogaanu nag ne ko waxal foo dëkk waxuma la waxuma la suul fi waaye yow dee nga rek mooy woo nañ sa waa kër te kenn du kenn du gunge néew bi sax yow da ngaa jàng wowle ndeysaan waa ji ne leen dara jotuma damaa tooy rek waa ji daal di naan ci buy yéeg bisaab yi daal di wér këng nawet bi daal di jeex waa ji ëpp gerte ci dëkk bi moo ëpp gerte ci dëkk bi mu dajale nit ñi nag bi mu war a ñibbi jaay na gerteem kay ba jël xaalisam du ko ci poosam bokki saakam nag daal di dajale waa dëkk bi ne leen waaye fi ma doon bay nu mu tudd ñu ne bay dee mu ne yéen fi ngeen doon bay ana ñi ko doon bay tool yi ngeen doon bay yéen ñii ñan ñoo ko doon bay ñu ne ko sunuy maam mu ne ana seeni maam ñu ne ko dee nañ mu ne fi may bay bay dee yéen fi ngeen di bay bay dee bu ngeen bayee dee bu ngeen bayut dee maa ngi dem rek gaa yi di xëccoo tool ba wala fa ñu waxoon ko bay dee ñu koy xëccoo ku nekk daan maa koy jël maa koy jël mu daal leen fay bàyyi ñuy xëccoo mu dem yoonam loolu dafa am sax ci kër yi léeg-léeg nga gis benn kër goo xam ne fii ku fi dëkk dee oto bi ku ko dawal dee fas bi ku ko war dee ku ko war dee ku ko warut dee dee moom tey la wala suba rek da ngay dee tey mbaa nga dee suba loolu bu yeboo ñu gindi ko suñu bopp lii ku ko def da ngay gaaw a dee ku ko defuti da ngay dee rek ah dee benn la ki bal rey ki paaka rey ki yat rey ki siburu dee ki tëdd ci lalam dara jotu ko mu dee benn rek la sabab yi ñoo wuute mais dee benn la nasaraan yi nag lan moo tax yàlla alag leen lu tax yàlla tabaraka wa taala sori leen njub mooy ñoom dañuy jëf te du amuñu xam-xam képp kuy jëf te amoo xam-xam mooy li ngay def du leer di jëf rek te gis kuy julli allahu akbar xamul sax lu muy julli lan la boo ko ne woon waaw sa julli gi lan mooy farata lan mooy sunna mu ne la ah man damay julli nii rek am na benn xale bu jigéen bu ñëw mus mus maa wax ne damaa bëgg nga bindal ma loolu ñuy yëngal loxo nii man bu may julli damay yëngal rek may gis gars yi di yëngal rek may yëngal taaya lay wax taaya nee na gars yi dañuy yëngal rek mu yëngal ma bëgg dama bëgg xam lu ñuy wax man damay yëngal rek fii ci ñun am na ñuy yëngal rek est-ce que dañuy yëngal rek affaire da nga war a lépp looy def dafa war a leer sa bopp lépp looy def na leer islam aaya bi ci njëkk a wàcc saar bi njëkk a wàcc alxuraan lan la wax ban saar mu njëkk a wàcc iqra iqra lu muy tekki mooy jàngal kon soo jàngul def nga musiba mbokk yi nee na fahum yajtahiduuna fi asnaafi alibadat bila sharia min allah dañuy góorgóorlu ci ay jaamu yàlla yoo xam ne yàlla wàccewu ko wa lihada kaana salaf ka sufyaan ibnu uyayna wa gayrihim yaquluuna wa man afsada min ubadina fa fihi shibha min annasara sufyaan ibnu uyayna nee na na mu waxoon ci yahudi loolu la wax ci nasaraan yi nee na képp ku ngeen gis ci jullit yi ah muy jaamu yàlla di ko yàq nee na dafa nuroog chrétien dafa nuroog restaurant mbokk yi fi la ñuy taxaw ci tafsir bi tey ba samedi bii di ñëwaat ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu njuumte yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ya bilal aqimi salaam